voudrais d'abord commencer par euh, remercier tous ces sympathisants et amis qui ont bien voulu honorer de leur présence physique euh, mon appel de cet après-midi. Une fois, ils me manifestent l'attention particulière euh, qu'il porte à ma modeste personne, euh, lequel appel aussi a été un prétexte pour euh, déclarer officiellement euh, ma candidature aux prochaines élections municipales de janvier 2022. Euh, la convergence autour de la commune de Dieuppeul-Derklé que nous venons de porter sur fonds baptismaux sera le fer de lance naturellement de cette candidature. Elle l'incarne là et euh, se chargera de sa mise en œuvre. La commune de Dieuppeul-Derklé n'est l'apanage de personne. Elle n'est la chasse gardée de personne. Elle n'est le domaine réservé de personne. Personnellement, j'y suis né, j'y ai grandi. Vous comprendrez donc aisément pourquoi je meurs de rage de servir cette commune, cette belle commune. Dans les tout prochains jours, vous aurez ma... dans laquelle évidemment je déclinerai les grandes lignes de mon programme et de ma vision. pour cette très belle commune qui à mon humble ne n'est pas très difficile à développer. ma ñëw rek ci wolof di am mbégte bu rëy di sant ñi ma nekkaloon léegi ñu uy woon ma mu nekkoon une un nombre restreint euh, surtout quand on tien compte de de de la Covid qui sévit actuellement ma leen di remercier bu baax a baax ñoom ñu taxaw fii ñëpp. ku ci ne xam nga ne mbiru politique boolewuma ak yow euh, yeneen relation laa am ak yow ñu ñëwoon fii wan ma cofeel gi ñu am ci sama modeste personne ma wax ne que convergence bi ñu taxawal pour commune Dieuppeul Derklé dana dem ci élection municipale yi ñuy ñëw euh, ci mois de janvier ma profité woon ci man ci sama bopp lancé suma candidature officiellement commune Dieuppeul Derklé nag du toolu kenn du lu kenn moom du këru kenn lu ñëpp bokk la man mii naw ma juddoo fi màggee fi yaroo fi ah donc su ma déclaré sama candidature kooku c'est l'expression normal démocratique c'est un pour man loolu du événement donc danañu dem ci élection yi ànd ci ak ñu ñu ci war a àndal convergence bii dana ci taxaw taxaw bi mu ci war a taxaw parce que différentes couches de la population bu jëppal Derklé yëpp ñu ngi ci ak beaucoup de primo votants ñoom ñu war ci jouer une part active ñu dem ci ba keroog am yaakaar ne nag danañu ci am dama may remercier waat ñi ñu nekkaloon ñëpp di leen wax ne ci fan yi di ñëw dinaa génne suma profession de fois nga xam ne dina ci décliner les grandes lignes de mon programme et de vision pour cette très belle commune nga xam ne ci sama gis-gis naqadiwu la defar maa ngi leen di remercier